ودان kan yu ma ما maa labraari hiina النبي وما لي لخير داي ما مسير يسيري بي الجذب لن يهادني كريم عليم عاروم يسير سكاني بأهلاني وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سفور نسوري وتعيدي ويسير لدى من الواسع الوهاب واو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مبوك جلدي السلام عليكم مبوك طالبي kàddu yi nga laajte dinañ ci sawar a tontu lool lool lool ndax amaana tey ku gis lii gis yi ñëpp nu mu demee rek moo mën lii moo woote si pas-pasu gaa yi ak bi ndax amaana yaraax yaat na lool lool lool lool waaye suñu borom ma dogalee tey ñu sam fii ko Sëriñ Tuubaa loolu mbégte la ak sant la waaye bi si jiitu mooy pas-pas ak yëg-yëg. ak dimbalu serigne bi ndax gaay bu amone amoon poste am ñu jik serigne bu tok ci won law duñu exi fi tay parce bo xol xoolee daanaka ay at ñu ko dajale si jaayante dem lati ay at yi def ay caravane ñi di dimbali seen doole di si def seen deureum ñi di génne seen ñax di def ci si jaayante tey moo indi lii dërëmu nit ñi témer nit ñi ñak témer nit ñi ba million ñi mo defar li tay ñu amoon tay nag tay le bus ñu toog ñu tombal nii tay mu doon le 8 décembre 2024 mu dem bis bo xamante bis bu rëy la bisu ndam la ndam rax kep koy julli sa ndam la rawat nañ ñu waa yaraax rawat nañ murid yi ñama fi ko sëñ Tuubaa bo xam peu peu lañu tek ah mu don lo xamanteni kep ko xamanteni ya ngi noyé yaraax war dara war la fi um da nga wara fu ñu fajar ñew tew dugg ci wañ bi dugg ci barap yëpp nga xamanteni fa lañu wara mëna jaayante ñu jaayante fa ndax liggéey sëñ Tuubaa amul lañ lu ko gën ci ko suuf kon nak bu ñuy amee bi rax la duñ ne sagub murid la sax waaye bi rax la kon nag sant yàlla bu wér a wér te gars yi te foog ñu xam ne lii ab sant yàlla ndax li ñu bëgg a amal mooy daara bu ñu ko amal fii daf ñu ko kër Sëriñ Tuubaa képp mu doon ab kër Sëriñ Tuubaa bu fa toogee dëng wut bi ndax jafe woon na woon na lool wax yàlla gars yi nag ay jàmbaar lañ ku si mel ni ñoom jëwriñ Sëriñ Modou Diouf Sëriñ Sow bu su ma limee sax damay juum gars yi ay jàmbaar dëgg ñu am passif ndax amaan na lu toll nii at yi ngi def bu doon keneen xàddina waaye nag sant yàlla ndax ñoom sëriñ bi leen teg loxo bu leen sëriñ bi tegoon loxo lii duñu egsi fii guddi moom mënta yem ndax metti won na lol lol lol lol lol bo xol tay gis nañ sa sañoon am barap bu gën fi ñu dem ñu am waye nak fi lañu nak sëriñ nato kon fi lañ koy nangol ndax sëriñ fi lako la bëggee aussi waye kenn ku ci nekk buñ sañoon dañuy am lo xamanteni bo ne nee tël rek seen ko amoon ci kaw tali bi mo moo ñu gënal waye fi lako ko sëriñ bi namm lañ koy defee kon lo sant yalla waye lu ma ci rafañ jottu rek moy fay suñu bay jaar bi suñu mam maam bi amon fi amoon nañ mëbët bii waaye suñu borom sotti na ko si ñoom suñu la ko sotti léegi kon sant la sant la ak sant ngërëm te te ñu xam ne rek lii du ñun mbaaxum bi la ndax moo naa tàmbali ba jeex duñ ko fekkee wala moo naa tàmbali ba jeex ah dañ naan ah jaaroon na fi rek waaye suñu borom bu ñu dimbalee si mbaaxum sëriñ bi ñu wooñu si borom su liggéey bi kon sant yàlla la sant yàlla ak baaxu sëriñ bi wax sëriñ bi da nga koy bëgg a liggéey mu bañ waaye sëñ bi mooy nam nga liggéey ko foo mën ne da la ñu jëli indi la moo xam Europe nga nekk moo xam ci même boo nekkoon ci biir bàmmeel ba bëgg laa liggéey loolu wallaahi si boo ñëw fi joxo tey parce sëriñ bi la xoolal lii nu mu taaroo car macha allah xoolal Baye Fall yi gaa yaa ngi si wàññi xool soxna yi ndax ci ay coono yi métti nag bernde yaa ngi nii fii si kanam tuuti 16 heures 16 heures 30 ku baax ki dina ñëw si dëgg suñu ndaxaa xalifa général def fi premier pierre te xeer yi ñu jëmale ko si kanam te lu ñu si bëgg mooy R plus 5 R plus ba jëm kaw te liggéey bi su gën a yéeme mooy daanaka boo nee kër Sëñ sax ñu gàtt dëgg-dëgg dañuy yaakaar ne kër Sëñ Tuubaa ñu képp la waaye kër gi daara la daara goo xam ne dañ si fas yéene jàngal ndaw ñi jàngal ndaw ñi seen diina jàngal leen xam-xam bu ñu weesoo si loolu yar leen ba ñu mën a dem dimbali seen i ay wajur dimbali seen ay mbokk képp ku mën doon te yaakaar naa ne suñ jógee suñ sotee jàmm boobu ndam yàlla parce que kenn du fay kenn du fay ñu si yéene mooy liggéey suñu Tuubaa liggéey suñu Tuubaa nag mooy feeñ fu nekk te bii bu feeñee fii kon sant yàlla kon gars yi nañ jóg jàpp ci ak doole maa ngi jégalu si kàddu yu baax a baax a baax jëwriñ maa ngi jégalu baax a baax a baax ak saa bisimilah baag sëñ Tuubaa ñuy siyaaraat ñëpp di nuyu ñëpp ñoom ñu si jiital sëñ Muntaxaa di ko ñaan mu yàgg fi noonu lañ koy ñaan lee sëñ Amdu Mbenda Fall ak mboolem murid ak mboolem taalibe waaw ñu ngi fii ci waañ bi ñu ñoo gérer wàllu sécurité bi ñu si liggéey bi ndax li nga xamante ne suñu papa yeeg suñu maam yi moom lañ bëggoon fii ci yaraax te amuñu ko kon ñun buñ ko amee dañoo war a sant mu ci woo waa yaraax yëpp nag ñu nekk yaraax bitim réew monde entier ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci kër sëñ Touba bi waaw buñ tegee pose première pierre bi rek dañuy continuer liggéey bi amatul taxaw kon ñu ngi santat ñep di gërëm ñep bak sëñ Touba waaw ligay baa ni yaatu na ma sha allah Yeah.

waaw bis bi de xanaa fas yéene koo tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim di ñaan yàlla jeex ko ci alhamdulilah rabil alamin waaw waaw projet bi moom musul yomb maanaam du début ak guñ ci fin bi nag waaye xam naa ne musul yomb te it liggéey sëñ Tuubaa ma mel leen moom moom chaque jour dañ ciy nekk rek foo yem rek kenn ñëwaat rek incha allah li ñu fi taxatee nag mooy pose première pierre bi maanaam benn partie wala deuxième partie ci ci ci liggéey kër Serigne Touba bi. moo waraloon ndaje mi tey ak euh, ak kon nañ liggéey bi incha allah tey nag euh, ki ci gën a ràññee mooy Serigne Abdou Samane Mbacke Sohaibou mooy ki nga xam ne nii moom lañ ci gën a ràññee ci kilifa yi am na yeneen kilifa yi it yu war a ñëw waaye moom mi nga xam ne moom mooy ci sëriñ Sëñ Tuubaa moom lañ ci gën a ràññee incha allah. sabab ko Sëñ Tuubaa yi nag euh, waxtaan la boo xam ne interne ci biir daayira bi ak ndaw daayira bi. ñoo ko doon waxtaane di ci mbébét euh, njàngalem sëñ Touba ak euh, fi jamono toll ak yàqu-yàqu yi moo waral mu gis ni daal war nañ am kër sëñ Touba ba gën a njàngale xamle jàngale sëñ Touba ak li sëñ Touba woote waaw yàllaa ko dogale fii xëy na sëñ bi nag moo ko bëggee euh, fii ndax sëñ Touba moom ay mbiram lépp pare na dañ ciy sabab la rek waaye fuñ ko amoon ci li wër yaraax tamit jël incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Youssou Assalamualaikum mbokk julli di mbokki talibé yi ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi nii si 8 décembre nekk première pause pierre que sëñ Touba fii nii si Yaraax Kapa si teewaayu sëñ Abdou Samad Mbacke moom sëñ sooy nekk bis boo xam ne bisu mbégte la bisu contentement la ñoo ngi nii taxaw nag ak jëwrinu Munawiri Sudóor jëwrin Mamadou Diagne ñu bàyyi ko tuuti mu sànni si ay kàddu. bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum mbokki talibé yi naaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu jaajëfal Cheikh Ahmad Bamba suñu yaakaar waaye di ñaanal xalifatul am Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bassirou yàlla gën ko fee yàggal lool te yokk wéram te àggalay naalam yëpp te ñu ànd ko moom tey jii nag bu ngeen gisee ñu yëkkati suñu kàddu mooy bés bi nga xam ne moom la ñu yàgg a dëgmal doon ko waajal weer yëpp eh, fas yéene teg première cause kër Serigne tubaa gi ñuy bëgg a taxawal fii ci tubaa Yarax Kappa Euh, bokk koog daayira yi yu fa sant yu koy nekk ci gox bi fas yéene fee liggéeyal lislaam fas yéene fee liggéeyal Serigne tubaa parce que yéene koo def daaray alxuraan euh, ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp tey nag mooy première bi première couche bi tey lañ koy teg incha allah ci teewaayu sëñ Abdou Samad moom Serigne Soñbu ndax dañoo xam ne eh, gis ne lii mënul ñàkk ci gox bi moo tax ñu jaayante ko fas góor góorgóorlu ba fas yéene ko fee di si def ngir taxawal fi kër sëñ Touba gu mucc ayib. parce que yéen fee dundal liggéeyub sëñ tubaa jàngale fi alxuraan jàngale fi xasida jàngale fi donga yi xam-xam loolu rek mooy sàkkuteef gi kon ñu ngi ci woo mbokki jullit yëpp kenn ku ne jàpp ci xam ne liggéeyub lislaam la liggéeyub sëriñ Tuubaa la te sëñ tubaa mooy lislaam kon ñu ngi ci woo mbokki jullit yëpp di ci woo mbokki taalibe yi yàlla nañu yàlla defal tawféex bañ àggale ko ci jàmm bu barke sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله defal ñu ko ñu ngi ñaan fal dellu ñaan sëriñ mu taxa yàggu fee ñoo ngi ñaan fal dellu ñaan aaji daan ñee ku faju لي نصعنا وأنت بمديك السلام خير ولا دعني معا بما اهو به للبر أنت النذير فذا الخالق تهديدا أو بي بأمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما زال ولا زال نهم بدور ومنه صلاة ما سرعة من هنا وغدا يوما سماو تأمر أخزني نما دملي أخزني غدا لما دملي يا سبي واجر مسمى وسيلتي ليس يروي هنا في خدنا قالك يوم السماء وتمور بس بني ذاك جانت بي دين دي بدي بي دين دي اسماء دي تاريكو داجي سوسي بدي غاربي te juróomi ponk yooyu ñu ñuy wax mooy kanu yi lislaam waaye bu fi kanu yi te baas bi nekk fi du tee naaj daal kon nag xoolaat bu baax baax sëriñ bi wax ni sëriñ Cheikh Bamba wax ni moo ngi soññu mbooloo mi ak mboolem mbokki taalibe yi ci jàngal ndaw ñi yar leen xam ngeen ni lu mel nii fu ko def rek sëriñ bi nee ak Touba la te Touba daara kon sëñ bi kon yàlla na ci ñun ñi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ Touba ci ndigalul sëriñ bi ñu ñaanal sëñ Abdou Samad mu yàgg fi yàlla fi yàgg tëleen na ko ñëpp wax ci barke Seexana Ahmadul Xadim waaye ñaanal leen ko moom sëriñ Cheikh Bamba mi yàlla yàgg sëñ Tuubaa la mooy ku ñu tudd ne ci sëñ Tuubaa nga bokk loo baax doyul sëñ Tuubaa ku bokk ci moom loo baax doyul te moom mii ku ko xam ku nekk baax rek nga xam ci moom ku ko xam ku nekk jaamu yàlla rek nga xam ci moom ku ko xam ku nekk aw yiw rek nga xam ci moom kon nan ko ñaanal mu yàgg fi téwér nun ñoom ñii borom dañuy amee bor li nu amee rek mooy nekk ci li sëñ Tuubaa nekkoon ba kenn jaar ci ñoom yàpp yoon bi te moom bii foofu la nekk

boo xoolee suuf yëpp lañ ko waajal mooy magasin bu def bagage ak ay toilette ak waañu ñuy toggee ay suuf première bi daara rek lay doon première bi daara jàng ak jàngale alxuraan ak téere xam-xam yu Sëriñ Tuubaa mu bind ko ci tawhiid fiqh tasawuf ñu bëgg koo jàngal suñu bopp jàngal ko suñuy rak suñuy jabar suñuy doom ba ñu yeewu ci sëriñ bi muy première bi deuxième bi. ñu waajal fa salle de conférence boo xam ni fa la ñuy dundalee suñu pas-pas lu jëm ci daayira ndaje yi nga xam mbir yi dañ koy war a def ci mbedd yëpp nee naa leen lii lay xew balaa jamono àgg foofu nañ njëkkanteeg jamono foofu am suñu barab boo xam ne suñuy daayira ak suñu yëpp fa lañ koy def duñu baara benn tali di ko jël barab boobu loolu lañ ko waajal troisième ba ñu def ko muy dalwaay appartement boo xam ne ñaari sàmb yu ànd ak salle de bain lañ ko programmé ak salle bu mag boo xam si ni njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp saa bu ñu ñëwee fii foofu la ñuy wàcc waaye yamaliwul si njaboot Sëriñ Tuubaa képp koo xam si ni da ngay woote lislaam boo ñëwee foofu foofu ñu ubbil la ko ñu koy ubbilee njaboot Sëriñ Tuubaa nga am fa cër bi fa njaboot Sëriñ Tuubaa di am ndax lislaam lañ fi nekkal lislaam lañ ñu doxal par par loo wuñu nekk ñu ngi nekk dara loo xam ne Sëriñ Tuubaa woote ko woon doxuñu ci loolu kon foofu la ñu nekk Mbàkke muy programme boo xam ne incha allahu taala boo defee couche première pexe ba noor bëgg nañ ko tàmbali te incha allah bëgguñ mu taxaw bëgg nañu balaa demee ci heure bii mu sori lool mu sori incha allah kon daal lii mooy programme bi nga xam si ni moom la ñuy dox ñu ngi ciy sàkku say ñaan di ci sàkku sa ndimbal di ci sàkku sa taxawaay ak say soññee ba incha allah buñ ko songee mu bañ a laal suuf kon yaakaar naa ni nit daal ñëw. kon dañuy daal di bàyyi sëriñ bi mu dem ci biir. maa Yeah. Ah!